accident bi nga xamee ne si moo am guddi samedi jàpp dimanche ci village bu ñu naan si kilo sa diwaanu ñibbi sa Kaffrine diggam ak Dakar 250 kilomètres bilan bi tollu si ñeent fukkuñu ñu si ñàkk seen bakkan lu ëpp juróom-ñetti fukk jëlee si ay gaañu gaañu ba fukk si ñoom ña nga sa sauvetage ñaari bis yu sookee l'accident bi ña ko doon dawal ak ñenn sa ñu nekkoon si yi ndogal yeeg li xew gannaaw l'accident bi ak li si bees la ju leen fa yéene leeral waaye laata loolu mbokk yi bu leen fàtte abone suñu seen YouTube Télé Sénégal ba bépp xibaar ngeen bañ ko wutu dal leen ak jàmm doo xibaar yu ñu jot si état wu ñaari oto yi naam enquête bi jeexagul waaye li ñu jot xam moo di ne biis bi pëna yi toj ba tax mu wàcc yoonam fekk biis ba jóge woon Dakar xamle nañ ne visite technique ba mu yoroon bëri na ay manqué manqué te leneen li si gën a doy waar di boobee bis bàyyee ko woon sa Tamba moo di amul woon assurance teg si ne moom woto bi pënam yi kalaate yeneen pneu yëpp a màggat surcharge ak diisaayu bagage ya ñu teg itam si ñoom ñaari bis yi enquêteurs yi wax nañu ne moo gën a métti l'accident bi ak vitesse ya ñu daan daw askan wi nag ku nekk ak ni mu jàppee wala jàngat bi mu am ci accident bi gouvernement bi jëlati ay ndogal ngir wàññi accident yi ci conseil interministériel ba ñu amaloon toll ci 22 mesures bokk na ci yooyee mesures aaye woto yi daw transport dëkk ak dëkk ñu liggéey diggante 22 heures jàpp 5 heures du matin waaye diir bi nga xam ne woto yi mën nañ ko daw fukk jàpp fukk ak juróomi at lañ ko limité tey it pneu occasion yi bàyyeekoo biti réew ñu dakkal ko ministre bi yor wàllum dem ak dikk sant nañ ko mu teg ay pexe fexe ba woto yi marchandise vitesse ba muy daw bañ a weesu yokk place ak teg porte bagage yu wàccul oto yi itam dañu ko aaye waaye bépp oto bu ko am ñu fexe mu deñ ak yeneen ak yeneen lépp toll ci 22 mesures. on ne peut pas exposer la vie de nos compatriotes dans un système de transport qui fait fi du respect de la vie humaine. Nous avons perdu beaucoup de jeunes dans cet accident. Et dès demain, le Premier ministre réunira un conseil interministériel qui va impliquer le monde du transport, les transporteurs, les chauffeurs, les assureurs, les services de sécurité, pour voir les mesures à prendre sur l'état des véhicules, sur le contrôle technique, sur les conditions d'établissement des permis de conduire, sur les conditions de délivrance des visites, des attestations de visite technique et sur les horaires de transport pour ce qui concerne les véhicules, les cars de transport de voyageurs. Alors toutes ces mesures devront être identifiées et nous prendrons toutes les mesures que requiert cette situation. gannaaw diis yi ñu jëloon ci atum 2017 te moo ne am na sax yu ñu bamtuwaat. si fàttali benn di zéro tolérance bi ñu waxoon si surcharge yi dellu si l'accident bu guddeeg samedi jàpp dimanche bi ak ñetti fan di deuil national bi Macky Sall jël ndogal gannaaw bi mu moom jiitu réew bi demee fa yëf yi xewee ak nemmeeku ñu si jëlee ay gaañu gaañu sa l'hôpital Kaffrine méttudlu na tiis wi comme bépp sénégalais ba si mbooleem kilifa diineeg aada si réew mi mel ni si Serigne basiiru Mbacké mi jébbal 40 millions jabootu si faatu ak ñu loru diwaanu Vélingara gën see tiisle ak lim bu takku bu bokk si accident bi xibaar yu mujj juróom-ñaari leen identifié maanaam kenn xamagul seeni mbokk di ñaan rek li ni mel bañ fee amati.